on n'a pas besoin d'être ministre sol costume ñëw fii di wax loo xamante ni. yow solo costume je ne défends pas ce que vous défendez. laissez-moi équilibrer vos déséquilibres rek on va avancer. ce que je dis. ce que je dis ah, les femmes portent des manières et je les respecte j'ai aucun problème avec les marinières. ah poursuivez. xam nga xam nga ne marche pas sur moi. juste détendez-vous. non non marinière les femmes portent des marinières je n'ai aucun problème avec ça. donc donc continuons euh, non fi may ñëw xam nga ko euh, à chaque fois que j'essaie de pointer du doigt. Aliou Sow Aliou Sow le poursuivre. xam a wax non non non parce que parce que parce que vous, vous parlez de la manière des dames les dames portent des manières l'incident est clos Bala Moussa poursuivre non des spécialistes des incidents ma bëgg a wax mooy mm. intellectuel malhonnête yi ne ci réew mi Aliou Sow on va intellectuel malhonnête yi ne ci réew mi mm. ñëpp xam nañ fii ne Abla Ablaye Wade bi muy ñëw dafa fekk ci constitution bu nga xam ne limité wul mandat loolu la fi fekk constitution bu limité wul ay mandat Ablaye Wade voté limitation mandat bi ñëpp fekk ko fi fii kenn feebaru fii kenn dofu fi ñun ñëpp ay nit lañ fekkee mu voté constitution buy limité ay mandat mu ne par contre lii mënul appliqué wu ci man une troisième fois am naa droit troisième ñu ne ko mukk du du ci dal ñu raag ak moom ci réew mi ba mu jóge fi Macky Sall ñëw ne day def révision d'une constitution existante révision bu nga xam ne laalul mbiru mandat yi au contraire sax da ciy dugal ay clause d'éternité loolu ñun ñëpp ñu fekkee ko tey ñu bëgg a toog fii di ñu raconter xam nga mbir mi lenn la ñun ñëpp ko fekkee moo tax ma naan sax des intellectuels malhonnêtes qui pensent que avec des mots et des verbes on peut on dugal ci bopp nit ñi lu nga xamante ni nii ça n'a aucun sens réew mi yëpp xam nañ ne réew mi yëpp xam nañ ne si nous je dis que cette position est malhonnête le reste ça man xaw ma vos vies que vous faites xaw mais ce que je dis malhonnêteté intellectuelle ah, mooy voilà malhonnête volonté intellectuelle mooy nga fekke constitution bu illimité ñu def réforme ne léegi deux la wadd bëgg a def trois ñu ne ko mukk du ci dal yow nga xeex loolu ñëw def révision c'est mm. quand vous parlez je vous écoute parce que man ce que vous dites mais par contre quand je parle vous me coupez ça montre votre problème man bu ngeen wax du ma leen sax ah, du ma leen sax maayin parce que dérangez-vous allez-y donc mënuñu toog fii yaa ngi ñàkk sax ñu waaw je suis en bonne santé <laughs> ñu nekk fii respecté wuñu sénégalais yi di utiliser ay mots et des pour nous faire avaler lu nga xam ne ça n'a aucun sens nous le savons ce pays c'est deux mandats bés bu annoncé sa candidature il va mettre ce pays en tension lépp lu ci mënti xew il en portera la responsabilité ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko si jàppale am na koo xam ne nag mi ngi fi monsieur Aliou Sow et permettez-moi de le rappeler parce que comme il aime faire de la diversion je vais en faire aussi ko yéen mu def ay émission tey mi ngi nii parce qu'il est ministre et du coup troisième mandat war na am ça c'est de la malhonnêteté et moi quand je dis que je vous dis en face je n'ai pas de problème alors am na ñoo xam ne dañoo ne euh, nañu bàyyi conseil euh, constitutionnel décidé na ñëpp dugal seen candidature la ngay tontu argument boobu si le président Macky Sall dépose sa candidature au conseil constitutionnel c'est parce qu'il n'a aucun respect au peuple sénégalais il n'a pas il n'a aucun respect pour la constitution bi ko le président de la république est une créature de la constitution constitution moo tax moom mu am mbubu ak dayo bi mu am constitution moo ko jox justice constitution moo ko jox armée constitution moo tax moom buy jàll ñun ñëpp ñu ëlbati ko bàyyi ko mu jàll di ko woowee son excellence qu'il respecte cette constitution mais foofa la lui le journaliste s'il vous euh, ah, président euh, déposer candidature et que candidature am ñu ko yow da nga ne loolu mën na taal dëkk bi alors euh, bu nekkee nii Pastef l'opposition en général dans le cadre de Yewwi Askan Wi mu nekk ay candidature multiple wala candidature unique euh, éventuellement ci benn deuxième tour wóolu ngeen seen bopp parce que wax ngeen ko yéen a am majorité actuellement euh, lu tax du ngeen yëkkati argument boobu in fine si vous êtes aussi fort que ça que nii bu ñëwee ci candidature dañ koy da koy gagner mm-hmm. est-ce que vous avez peur de quelque chose mu dem candidature ngeen gagné ko gannaaw yéen a nekk majoritaire. nous n'avons peur d'absolument rien et il y a trois raisons. boobu kenn du ko amul benn problème. non dama lay parce que loolu. non loolu xam nga dafa pendant te kenn xamagul fan lay mujjee amul benn mm. y a trois raisons qui font que yëngaluñu benn bi <laughs> mooy dañu def élection présidentielle 2019 benn boo ko yaakaar reculé. ñu def élection municipale ñu gis avancé euh, euh, euh, opposition ñu dem présidence ñu dem élection législative ñu gis li ñu gis assemblée de l'histoire du de l'histoire du Sénégal c'est la première fois li xew-xew c'est l'opposition grâce au peuple sénégalais ñoo def lii ñu def nii mu nekk une exception depuis l'histoire du Sénégal mm-hmm. kooku boo opposition ma continuer mm-hmm. su may wax loolu la dara nga di ma dagg mm-hmm. toj na tas loolu mooy premier élément bi deuxième élément bi et c'est hyper important vous savez ñun on valorise la vie humaine. Mm. Macky Sall annoncé sa candidature. mën na fi jur ay bakkan yu rot. et on ne veut pas de ça. bëgguñu loolu. tey bi mu fi annoncé candidature am combien de sénégalais sont morts. ça loolu dañ koy passer pour perte et profit. c'est bakkan yooyu dem est-ce que c'est important ou c'est pas important c'est des c'est des fils ay doomu jàmbur ñooy dee à chaque fois qu'on va faire avancer ce pays voilà pourquoi bu dem troisième mm-hmm. nekk ay un homme d'État c'est la responsabilité sur des principes c'est pas parce que l'opportunité est là bu ñu demee élection mën nañ ko gagner ñun xam nañ bés bu imposer sa candidature dóor ko mooy gën a yomb bés boobu mais pour le principe et pour l'éducation et pour la nation principe républicain dañ koy défendre jusqu'au bout mais président euh, une dernière question président ci discours am wax na ni euh, kenn warul ñëpp dañoo war a fàtte seen bopp yaakaar naa xam nga ñu koy tënk